yéen mbooloo mi maa ngi leen di nuyu nuyu bu gën a màgg di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di leen kontaane lool ci tatagal gi ngeen ma tatagal ak teeru bu rëy bii ngeen ma teeru te xam ne jot amul fenn kon maa ngi leen ciy sant bu baax baax encore une fois sant gi nag maa koy tàmbalee ci sama ami Dafa muy Bambi mii man ak moom ñoo xaleendoo defandoo lépp muy sama xarit bi yàlla dogalee nag. ma génnoon nekk ci diaspora bi di yëngu ci diaspora bi ba ñëwaat sama dëkk bii ma dëkk muy Touba Mbacke gi ma ñëpp xamee fi laa defe samay politique fi laa defe sama ndaw fi laa defe sama lépp man ak moom ñu ànd ko ba yàlla dogal ma nekk Daaru Xuddoos moom mu nekk fii ah, mu tàllal ma loxo nag depuis ma fi nekkee yàlla dogalul woon booba ma ñëw seet si ko kon tey bu yàlla dogalee ma ñëw seet si ko damay santaar yàlla bu baax a baax a baax aussi di siyaar sama tante ji nekk ci biir ndax ku ma bëgg la mais maa ngi jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo soxna nday Jóob mi nga xam ne nii dama naan moo ma yar ci daar Daaru doos ndax ñun dañ naan saxaar gi wàcceewuñu fi ndax bi saxaar gi di wàcc daf ñoo fekk ñu taxaw ak suñu bagage ah euh, li fi wax yëpp nag dégg nañ ko parce que politique dañ ne jëmul àllaaxira àddina bii la jëm ku ci ànd ak nit ànd ci lu ngeen mën a nekkee mooy fulla fayda ah bi nag moo yàq lépp mais yaakaar naa ne ñëpp yemuñu ndax ñun fii ci Touba Mbacké kenn duutuñu fi laajte département Mbacké bii mais diaspora bee ñu nekk tamit kenn duutuñu fa laajte bi yàlla dogalee nag suñu nationalité Touba Mbacké gi la nekk dañoo fas yéenee ñëw nag takk ci mbir mi niin ci bat fas yéenee jàppale ni ñi xam ne ñu ngi ci guuta guuta gii ñu yeew ci Sénégal yi rawatina Touba Mbacké gii nag ñu seppi leen ko ba mu sedd wecc fas yéene ànd ak yéen ndax kenn mënul dem kenn mënul dem sans jigéen kenn mënul dem xale man soxna say laa nag La Lion tuddewu ko sama bopp sama papp Ablaye Wade moo ma tudde La Lion waaw te yaakaar naa La Lion gaynde rek lañ koy tuddee mooy koo xam ne du daw te du ragal te lépp lu muy wax lu man lay doon lu mënuti du ko wax ba yàlla dogal nag ma nekk nii ci Benno Bokk Yaakaar di liggéeyal première dame Marème fay sàll sama xarit sama confidente sama idole waaye nag bi ma nekkee ci Benno Bokk Yaakaar it damaa nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar di xeex nag li may xeex bu sew ma meetar ci Benno Bokk Yaakaar mooy liste élection locale yi muy liste élection gox ak goxaat ñu tànnal ñu koo xam nekk nii neexuñu bëgguñu ko ànduñu ak moom parce que biñ koy tànn dañu ko war a tànn ci consensus woo responsable yi xool ba xam kii ñu bëgg a teg ci Touba buñ ko fi tegee ndax di askan wi seen jooy yi ñuy joo dina daje. waaw mais Touba Mbacké boolewuñu leen ci dara ñàkk boole googe ñu leen ñàkk boole nag te ñun jigéen ñi ñi ci ëpp ñooy fal ñooy folli loolu laa leen di bañal mooy bu leen kenn joxati ay kaar bu leen kenn joxati ay vaal bu leen kenn joxati ay tiset di leen ko solloo aki i 2000 francs bu milliards yee ñëwee ñu jël ko jël seen i doom rawale leen yéen ñu leen di dóori xeer ak di leen sànni xeer loolu lañu taxaw lànk waaw kon donc encore une fois tax a jóg mooy fas yéene jàppale leen fas yéene suqali leen fas yéene jàppale leen ndax waxoon naa ko wax waxaat taxut a bari wax bëgg li ngay wax fajoo tax mooy politique jamul àllaaxira addina bii la yem ku ci am dara bàyyi ban nga toog waaw man nag Touba Mbacke gi nga xam ne fi laa dëkk daf maa ñor te dëkk yëpp avancé nañ ci politique dëkk yëpp jàll nañ ci politique dëkk yëpp am nañ li ñu am mais waa Touba fi nga leen bàyyi woon ci keru ngoon gi rek boo ñëwee fi nga leen di fekkaat ndax nax ñu leen di nax ci lañ sonn ma ànd ak yéen di leen jooyee nax wi di leen ànd yéen naqaroo la nax yi di ànd ak yéen ci mbégte moo xam ne fas naa yéene man ànd yeen yéen ci consensus ànd ak yéen ci dëgg ndax su ma waxee fii yaakaar naa bam bi rek ma seede mais journaliste yi ñoom xam nañ kuy soxna sëy laal yoon ndax koo xam ne yaakaar naa ba nga dalee politique ak léegi kenn xamul kañ la nday Jóob mii xam na lan laa man ak lu ma mënut lépp lu may digee lu ma man lay doon mais lu ma mënul du ma ko digee sama bataay bi may bataay nag mooy bataay bi may bataay mooy bopp fas wi bu ko ku ko jël ba dem ca urne ya la nga dem fas yéene taal ko mu tàkk nga boyale ko bi bisu keroog taale ko añ wala nga may ko maire buy jaay jaaf waaye bu mu dugg ci enveloppe bu mu yéen bu ngeen mënta dem mën leen a wax am ngeen ñu leen mën a demal am ngeen ñu leen mën a waxal mooy Makhtar Diop bëgguma sax jaar ci turam di ko may bës ndax amul bës ndax ku kenn xamul nee ko ba ngay ŋàbb sa mère gàddu gi di wàcc kër si Lo man soxna Sey laa yoon fii nga ma fekk te laa liyoon Moustapha si Lo mii gaynde dëkk bii moom xam na kan mooy soxna Sey ndax jox na ma sama gëdd ak sama cër ci politique waaw kon loolu rek lañ leen doon ñaaxe di leen sargal di rafetlu tamit taxawaay bii nga xam ne taxaw ngeen ko ak teeru gi ngeen ma teeru sargal ma te fas yéen àndandoo xàccandoo dóorandoo te ñun luñ fi wax rek fas ñu yéene ëllëg ñu dellu si fi ñu naan bam bi yaak fi waxoon wala ñu naan soxna Ndey Diop ana seen mbokk ma ko fi waxoon lu ñu man lañ fiy digee luñ mënul duñ ko digee di leen fas yéene jàppale leen ci suñu ñaq ndax suñuy bopp la ñuy demee demuñu ci moyee benn parti demuñu ci moyee benn parti bi ma dalee campagne ba léegi ci sama moyee bopp laay demee te fas naa yéene du ma ci daw dara ndax dara du ñoruma lu may dëkkub Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi waaw ndax fu ma mën a dem muy bitim réew muy Sénégal lu ma mën a root fas naa yéene ci dëkk bi laa koy indi muy muy Touba Mbacke gi Sénégal nag benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar su ma déggee ñu naan réew mi dina tàkk réew réew mi du tàkk parce que réew mi kenn mënu taal dëkk bi Cheikh Ahmadou Bamba teg juróom-ñaari soroorom yi ku ko bëgg a taal day tàkk waaw waaye teewul nag nit ñi li leen naqar yi danañ ko wax kenn du ñaw saw làmmiñ kenn du tëdd ci aw naqar kenn du ci loo xamul ñu naan la toogoo rek dinaa la jàppale te li ma metti mooy buñ leen jàppalee ba ngeen watee leen ñu taal seen i 4x4 dem ca imoo moomul yi gën a rafet taal seen i kilim jël seen i doom génnee réew mi ba na ngeen leen a gisante rek élection daa ñëw lànk leen loolu moom laay ànd ak di ko lànk la ko waaw su ngeen gisee nag responsable boo xam ne leader bu mel ne soxna Sey laa li yoon nga xam ne doxul ci intérêt personnel intérêt kama lay dox muy intérêt département Mbacké ngeen ànd ak moom li ngeen di ànd ak moom moom fi jooytu dinaa lancer appel président Macky Sall sinon dinaa lancer appel Marème fay Sall mu jàppale leen ci financement yi ndax financement yi dañ leen di dajale di leen binduloo est-ce que ñu leen di jox li ñu leen bind ngeen jël seen carte d'identité ndax ñu leen bind ñu leen jox dajale seenub xaalis yóbbu te du ngeen gis dara loolu nag lànk leen ko te may ànd ak yéen ko lànk leen liggéey bi daal moo fiy jeex ku mën a tee ñëw ci yéen daal lim man mooy na leen fajal seen i rangooñ benn bis parce que man maa ngi bennoo bokk yaakaar ndax jeeg buy sëy ci kër bu amee lu ko naqari warul fay daa war a toog ci biir kër gi faj li muy faj man loolu laay def voilà rafet lu rek seet si bi ma soxna seet si ma mbug leen a leeral tuuti ne soxna maa ngi moom démb la woon ma doon ko jàppale bu yàgg maa moom nag sama jàppale moom un an tey jii nag la yàlla dogal jataay bi nii waaye lu mu mus a xeex rek maa ngi ci ginnaawam di ko xeex la jataay bi mooy ñëw jàppale ko ci euh, list bi ñu teg ci election locale yi di ñëw ñu jàppoo ko jàppale ko ci li nga xamante ne moom lay xeex ñu jàppale ko ci xeex boobu ba nga xamante lii mu bëgg ci dëkk bi suñ borom may ko ko loolu la ñuy jàppale soxna. niñ non niñ ko fas yéenee jàppale mooy ñun ñoo moom suñuy kart kenn du ñu sàkkal fi ñuy voté kon ki ñuy voté mooy ki ñu àndal muy soxna comme jëm rek fa lañ jëm waaw noonu lañ koy jàppale ñun carte lañuy jàppale jàppalee soxna waaw non du jàll du mës a jàll liste bi fay na bu yàgg merci